rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam kenn ku ne ci turam ak santam di leen balu xaq tey balu xaq ñëpp amoon kàddu yu gàtt yu ñu bëgg a jàllale rek si mbokki jullit yi seqal liggéey bi ñëpp muy liggéeyub lislaam boo xam ne cheikh Mouhamadul Mourtada yal nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram moo ko fi digle woon defoon ci alalam lépp ngir yërmandeem ak gis-gisam bu sori ngir mëgg ñu fi taxaw njaboot yi fi feeñe ak ñi bëgg a yokk seen xam-xam ci seen wàllub diine loola nag am na jéego yuñ ci jot a dox ndax mbokk yi féete si fii ñu bare bari ñu ngi ñëw di jàpp di jàpp si ci njàngum xale yi ba fa tabaarakallah mi ngi yokk bu baax sëriñ Fallou Sarr mu féete woon fële ca weti lu mesaane moom it mi ngi fii ñëw di jàpp ci liggéey bi bu baax loolu kon mel na ni la sëñ bi mébétoon ngir barab bi nekk lamp lamp bu lislaam ci Europe ah ñu ngi ciy am yaakaar bu baax ba tax na ñuy soññ di fàttali ñëpp rawatina ñi nga xam ne seeni njaboot dañoo féete wet gi waxtu ma mënee di ñëw di fi indi seen njaboot yooyu ñu leen di jàngal alxuraan di leen jàngal seen diine loolu lu ci am solo lay doon. ndax njaboot yi responsabilité waajur yi la kenn ku ci nekk ëllëg danañ la laaj yan taxawaay nga ci amoon kon ñu ngi ci soññi ñëpp te leen ci woo ñaareel ba am na ak yokk gu ciy am ndax barab bi nga xam ne moo sës ci daara ji tab essence nekkoon fi gis nañ jamono yee ci ginnaaw ñu bari di ko yuutu ba ko jënd yàlla dogal na jawriñu daayire bi suñ maxtaar kandi kanji ak ñi mu àndal fexe nañ ba gis boroom barab bi ba waxtaan ak moom ba am ak moom ak déggoo ci ñu jënd ko yokk ko ci daara ji loolu it wax dëgg yàlla di jéego bu am solo boo xam ne jëwriñ yi seqi nañ ko jëm ci lu yokk liggéey bi ba taxoon ñu jàppoon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi ab daje boo xam ne bi su jaayante lañ koy def ngir mën a jënd barab boobu doo yokk ci daara ji boobu it ñu ci ñu koy fàttali ñëpp leen ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw lu ci waay man mu def ko ci te xam ne dara gënu koo am solo ci liggéey bi liggéey sëriñ Touba bi nga xam ne eh, ndigalul Cheikh Mouhamadul Mourtada la nga xam ne dara ñoru ko woon lu dul lislaam ak luy sagal lislaam ak lu koy yaatal ak lu koy ñoŋal ba taxoon mu digle barab bi loolu lépp nag ah, ñun ñoo am tawféexi ñun ñu féete wet gii rawatina Euh, féete ci barab bi kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp góor ak jigéen maak ndaw luñ ci man ñu def ko ci ba la doon yéeneem ñu mën koo mottali te mooy barab bi nekk barabu euh, lampub lislaam di ab sowukaay boo xam ne euh, lépp lislaam rek moo koy tax a jóg jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan sunu borom subhanahu wa taala euh, mu mottali yéene yëpp te nangul ñu liggéey bi wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ali